salaamaaleykum Cheikh téléspectateur BNTV Sénégal mo nuy len bu baax ziar len comme niñ koy amalé nak sa su bu waccay safar yexé yakax na ni jamono ji képp ñepp xam nañ ni safar jotna ndax demb la wër wi feñ tay murit yépp bék sen kanam yépp leer so waxé ñu né safar jublu sina na nak tamit jotna na tay dañoo togal kenn ko xam né wa kër Cheikhul Khadim la muy El malik Malick nek jang katu xasida nak bu mak domi ngay mexé ji nee naa leen si limu doon fexé na ba daal ci jël pee waaye laata lolu dañ koy bayyi mu mbokku téléspectateur TV Sénégal ziar leen bu baax a baax alaaj Malick ok noo def baam nga jàmm. sant nañ Cheikhul Khadim jàmbaar ji bu baax di ko sant bu baax baax macha allah bégg nañ lool waaye mu mel ni rek xam naa kàddu yi nuyoo beeg yooyu yëpp rek dañuy ni safoor bu jubee bu gaar daa mel ni. daa war a corné kon li ñu xamee nag mooy xasaayit mm-hmm. waaw kon nag dañuy daal di barkeeloo ay bayti sëñ Tuubaa rek hamdi wa sukri liman كلي به سارا لا غوردا دون سوق تنين دسار سارا حمدي وسكري لمن كلي به سارا لا غوردا دون سوق تين إن دزار زارا لغو زنا وارد واني بلا زقات مزغاد لي من باني دايما انزارا لله كل لله أبار مكرمات من أردار نواو في هجام من سارا إن الذين إلى سرسار خر خزادو سيارة farahu darini awsara ina lazina ila sarsara xat xasadu siyaretil faraho darini awsara addi Cheikhul Khadim soxna Ndeye Ndiaye. jërëjëf El Hadj lay bëgg a baax jërëjëf. ndeysaan. di bëgg waat ñëpp rek mbokki taalibe yëpp. jëruñ ci see cameraman bi ñu ngi koy siyaaraat baax. Serigne Bàcc Masamba Lazane Ba. Mm-hmm. waaw moom Sëñ Tuubaa waxoon loolu ci moom. Mm-hmm. Bàcc Masamba Lazane Ba bàcc mi amul bàkkaar. Mm-hmm. kon ñu ngi lay siyaara baax di la jox sa wàccuwaay. di ñaan sëriñ bi defal la tawféex barke Cheikhul Khadim. jërëjëf momen mu melni nak nim ko waxe saxar bu jubee gar day daal di waye nak mom ci limu don sank sama introduction wax naa leen ko fexena ba dal si jël pé ndax ah, do wax kat ah, tuddoo aladj malik malik mënul nek c'est que géyeen gi mu sant rek moma xawa jaxal waye nak dama ko koy bal ndax tay dañuy na gey ga ko tax a neex <laughs> Alaaji Malick kay gey gi neexul wax deug neex yalla sant géy ñoo la nak ci ah, limu don neena ñu jup safar waaye laataa safar dañuy màggal jëmm ju tedd muy Cheikhul Khadim muy borom muy ah, borom wiir wiir borom maayombe borom ndimbal wari géej gi góor gi laloon si jaadam si biir géej gi nee naa leen julli mu takk suuf képp koo xam ne di di laam-laamee man leen kuy laam-laamee na ko sa maam def waaye boobu ba léegi kenn defaatu ko kan mooy Cheikhul Khadim macha allah soxna Ndeye Ndiaye jërëjëf kàddu yooyu sama xol sedd na ci lool xamna kan moy cheikhul khadim du du ci xaj waye dañuy tuddu lenn ci mom rek lo xamni ni deg di nga xamni li ci mom la bok ndax mom dafa waxal ni karaamati xatti yaddi fii xidmatin mooy wa kana li bi afyadi yaddi allahuma safari nga xamni mom bindum loxom moy karama bopam julli gim julli ci geej geek la fa jaar ci gaynde geek ñaari rakka yaag yeb cheikhul khadim neena lolou du karama mom neena bindum loxom moy karama te bindum loxom yi doyna sa karama ndax doyna rek maam bind mo xani boko boo da ngay tàggoog sa sago da ngay garab di def yenen ak yenen di nan lu di jamu, jeli pak di jam sa bop ak yenen ak yenen ta do bënn do dag lala jaral ba ngay def loolu noonu loolu karaama la mu mel ni Cheikhul Khadim euh, doonul koo xam ni dañuy mën a laal loxo daal ni kii mooy Cheikhul Khadim nii la mel fii la yam waaye daal jàppal ni mboolem gaa yu baax yi fi nekkoon kenn ku ci nekk li nga baax la rek la Serigne Touba bokkale ak yow li nga baax la loolu rek la Cheikhul ak ñoom xam naa ni coono yi jàpp nañu ak wàccaayu safar gi waaye mhm. Euh, liñ ci bëgg a wax daal xam naa du ci xaj waaye lii moom njort naay lu nuy waajalaat beneen bis lay doon ndax mu gën a gudd gën a yaatu. incha allah rabbi waa ñu jëm ci 18 safar. 18 safar. Mhm. xam ne murit day bég. day kontaan. leer day leer nañ. day mi ngi noonu. ñu jëm 18 safar la. <laughs> ndeysaan. Mhm. ak Cheikhul Khadim. surtout maanaam mbégte moomu mhm. ku la ci raw raw na la fépp rek. bu ma xoolee ba ma raw la ci. Mhm. raw naa la fépp boo ma ci raw raw nga ma fépp. Mhm. Euh, ndax wàccaayu safar. Mhm. ak yin ciy def ak période bi jamono ji fi muy toll mbir yi seer na. lenn rek lu gën a ndaw ci li ñuy jëfandikoo muy café Touba fi ne mi ngi jar 6000. mille la de seer. kaas bi nga daan jend fukki dërëm ñu ngi koy jaayee ñaar fukk léegi seer waaye sëriñ bi yëgul loolu moom yëgul loolu ndax fi ne ba Iblis ne njëkk naa la sa taalibe yi da ko njëkk naa la ci xol yi Cheikh Abdou Lahat yàlla na yàlla yokk leeyam taasu ci barkeem mu mel ni mag ñi dajaloo woon boo xam ni dañoo dem fi moom daan ni ko Mbàkke dañoo bëggoon nga ñaanal ñu ndax nawet bi kat ñaari nawet yi jàll yëpp daa gàntal mu daal di jël ni leen nag xol yu nangu moo gën nawet bu nangu xol yu nangu yooyu nag moonu dal moo tax fi ne màggal gi ak safar gi nii day daal di kelkel day taw feexi doom benn jafe-jafe <laughs> waaw Cheikh Abdou Lahad mhm. moom la Sëñ Tuubaa noonu am na ci moom yaakaar mhm. waaye yaakaar jooju tasul mhm. yaakaar jooju tasul ndax li ko firnde bari na doy na ci lenn rek nga tudd daaray kaamil daaray kaamil ku dem Tuubaa xam ni Cheikh Abdou Lahad yaakaar ji Sëriñ Tuubaa amoon ci moom loolu tasul jafe-jafe yi sëñ bi doon jànkonteel ak tubaab yi jafe-jafe yi sëñ bi nekkee woon ak tubaab yi ñu dem bureau Bassandar gars yi génne ko numéro 4. wallaay ndeysaan numéro 4 bi chaque jour mën leen du du du ay wax rek waaye ju la ku ko mën a firi rek na ko firi. waaw loolu day xam naa numéro 4 bi sax lu dal ci kawam la rek. waaye taxu ko woon a jóg. taxu ko woon a jóg moom sax xam naa ne la nam ko bëggee woon. bu fekkan ñoom defee nañ ko noonu kon numéro un sax lay doon. waaw ndax comme tubaab bi nee na ko ñi fi jaaroon di woote diine maaleen leen gàllankoor mu ne ko booba da ngaa njëkkewul ci man boo njëkkoon ci man ci man ngay yem léegi nag la xewoon fa ndar bu fekkoon daa njëkke ci moom kon numéro un lay doon kon du egg ci trois du egg ci deux kon numéro un rek lay doon waaye nag xaj na numéro quatre bi moo laam moom mbooti. xëy naa moo làmboo secret yi. dañoo jëm si safar. Mhm. Mhm. ku wax safar alaaj Malick. wax ni wax dëgg neex yàlla sant sëriñ Touba la. waaye nag safar woote wuñ ko pour puukare. safar woote wuñ ko pour dem di def loola neex. yaakaar naa ni dëkkul Cheikhul Khadim bi boo fa demee war nga fa am beneen taxawaay. alaaj Malick ñiy dem Touba. Mhm. di di di di di jaayu ñiy dem Touba. di fa dem di noosi ñu xam jumaa ji fan la nekk sax dinañ dem tuubaa ba daal di ñëw ñu xam yoonu jumaa ji fii la ñoo xam dañ faa dem pour cakaay ana loolu lan nga siy wax ak lan nga leen di ñaax. waa ñooñu sëñ Touba waxoon na leen ko bu yàgg lu jiitu lii fi ne ndigal lim ndigale woon bàyyi ko fi ku fi nekk xalifa boo toogee téere boobu da nga koy daal di jëlaat attewaat ko mu bees nga daal di koy jàngaat. muy digle yi mu digle woon mooy lii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké digle yàlla na fi yàgg loolu te wér barke sëñ Touba maanaam sëriñ bi am na ñoo xam ni dina leen ràmm am ñoo xam ni da leen di selbu nee na nag am na ñoo xam ne da leen di yóbbu ba fa mu jëm mu boole leen ak ràbbu sëñ Moussa Ka nga xam ni jàmbaar la sëriñ bee ko bàddil ci taw fee xam moo noon am na ci ñoo xam ni boo dëkkee Touba dangay mel ni waa Touba waaye boo génnee Touba mel ni ay kooba kooku mooy maanaam koo xam ni loo ko jege jege yaay ki ko sori boo ñëwee ba dëkk ci wetu jumaa ji waaye ndigali sëriñ bi defoo ko tere yi bawoo ko yow li ñuy tere yaa nga ca li ñuy digle defoo ko yaa ngi ci wetu jumaa ji waaye dëkkoo tubaa loolu dëkkoo Touba loolu Cheikh Abdoulaye leeraloon na ko. su fekke nak da nga nek ci tugal waye li serigne bi diglé yaangi ci lam tere yaa nga gor góorgóorlu yow yaay ki jige yaa nga tuuba moom xol bi la soxla lam waxan fee rek njëkk naa la ci xol yi lool moy ñew waaw Cheikh abdoulat ban ko laajee touba fum yam dañ dañuy ah, manes na xam fum tambalé waye waaye su xam fum yam waye dal li wëta lèr fo nek di def ndigal yi bàyyi tere yaangi touba waye bo nek ci bir dëkk bi difa fa waye li ñuy tere yaa koy def li ñuy digle bàyyi woo ko da nga koo sori ne koo fi ndax doo gisanteeg moom boo jaaree nii mu jaar nii waaye nag terewul Cheikhul Khadim lépp la moom daa bari le boo fa lambee loolu lamb da ko fay daj waaw. gi ginaar la la ginaar la daal di tàmbalee woon waaye jamono jii El Hadj Malick gaa yaa ngi rey ay nag ñi di rey ay gëléem ñi ko amul sax wax dëgg neex yàlla ñi ngi def ay mburoog chocolat ak ay kafe mu mel ni lépp rek sëriñ bi nee na cantale ma ak ni nga ko mënee waaye cant ma ak sa doole fi mu toll waaye bul jël alalu jàmbur bul def naka su dul noonu ana lan ngay wax ñi nga xam ne dañuy dem ba Touba au ñu dem santile ji Cheikh Ahmadou Bamba safaram gi waaye dem di jël di jël alalu jàmbur dem di def naka su dul noonu ñii nag ci ñi ma ko sañ a wax dem ñii dafa naani ñii dafa tuxi loolu ana lan nga leen di ñaax en tant que ñu koy waxatee communicateur waye en tant que nit ko xamni ne nga ak lu mu tuti tuti si keur Cheikhul Khadim. Mhm. machallah allah soxna Ndeye Ndiaye kàddu amna solo trop machallah allah euh, ñoñu xamna ni bu mas ñoon dañ koy daal di ndax yow dekk bo xam dañ fay deforo mo ku fa yapp nek la. wallahi fitere. ndax mom lim yow bàyyi woo ko sa yàqu taxaw na léegi boo fa yàqoo fooy defaroo ah, okay kon nak bu boba ñi nga xamni dañu doon ay jami yalla di dem ca dekk ba euh, di magali, nañ xamni dañuy magali dañuy outi ngeenel dañuy wuti xewal dañuy dem pour raxas sen ay bakar kon nak buñ nangu kenn di magal sen kaw buñ nangu kenn di jël lu bax li di len baye ak safan ndax dekk bo xamni lepp nga fa dajje ci lu gën ci lu tawfexé way rek way amal jomi jël lu taw hmm amal jomi jël lu tawfexé ba ci sax yow mi nga xamni da ngay dem ci kër gee di fa dali donte ben mbusu café buy jar 100 francs la nga di koy jënd boko jëndé jëndee ni kat mako ko jaayante ak seigne touba ci magalam bi bo ñëwee ba ci kër ga ngay dal bo jog gisul borom kër geet nga joxé ko ca wañ wa ñu xamni yow muus mi yaa ko barkeeloo moom. wala laa boo ko laal da yokk. waaw ku la ci raw raw na la rek. Uh-huh. ci màggal gi. safar gi ku la ci raw. waaw kay. incha allah. incha macha allah waaye képp koo xam ne da ngay def xidmatul xadim di daal di ñëw bu sooba yàlla waaye képp koo xam ne tubarkàlla da ngay yëngu si njàngum sëriñ Touba waaye da ngay xamal nit ñi kan mooy sëriñ bi na nee naa leen géej la mhm. xam ko jafe na loolu waaye dañuy cof tuuti rek ndax buñ ko doon waxtaanee fii ba ay at doo xam kan mooy sëriñ Touba da nga siy cof rek wax sëñ Musaa Ka dafa ni sëriñ Bamba amul maas te kenn waru ko raas Mbàkke moom amul fa saka fi Bamba Sëriñ Bamba amul maas te kenn waru amul faas saka Bamba son Ndeye xam naa buñ ñu ko toppee waaw dinañu kii kon daal yàlla na sëriñ bool ñu defal tawféex barke Cheikhul Khadim alhamdulilah Malik nek uh, nekk waye nek jang katu xasida bu mak bi fi bir pikin ak international nee len fepp lañ koy wowe ndax xam-xamam bu sel ak mbaaxam waye ak oyofteem nee naa leen nag safar la la wote chaque jour mané len Bayen TV Sénégal utile ak agréable rek si lay dox waye nak bepp programme bo xamné ne ñom ñi ngi ci bir di ziar bu baax baax khalifa général kuli murit muy Serigne Mountakha Mbacké ñukay ñaanal yalla yagal fi taxawayam yalla bayiko ci kanamu bi kanam a kanam 18 safar fii si Bayen TV Sénégal beneen plateau incha allah dem incha allah.